suñu mbokk sénégalais yi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax topp bi ngeen di topp seen TV euh, ba léegi mbirum Lobé Ndiaye euh, seen TV moo ngi leen koy toppal mu am koo xamante ne euh, ku ko jege la ñu dalal ko ñu bàyyi ko mu nuyoo ak téléspectateur wu ak internetu seen TV sëriñ bi ñoo ngi leen nuyu ñu bàyyi la nga nuyoo nga présenté wu. maaleykum salaam ñu ngi leen di fay di leen nuyu. di leen massa masawu coono ci problème bi nga xamanteni amono ko ñun ñepp ñu bokk ko di sante aduna bi yépp surtout di sante ñepp ñi nga xamanteni ni yëngu ci walu auto ñu gis seen taxaway niñ ci taxawoo ak coono yiñ ci ak yépp wax deug yalla ñu ngi jaale ñepp di balu ñepp ak tamit ci coono yi parce que vraiment ba légui xamna ni ñepp seen xol neexul wa bo gisee ba légui mën wax sama xol neexul parce que jégé won na ma trop sama nit sama complice bo xamanteni ni réeroo wuñ ci dara mo ak mom wax teug yalla tey ji daal laa xaw a daal tuuti moo tax ma nit ñi pour wax ak wa man Gora Gueye lañ may wax Gora Gueye waaw maa ngi dëkk fii ci Zangbaw bi man ak Lobé Ndiaye ñu bok fi ñuy liggéey ñuy ay commerçant bokk li ñuy jaay bokk tamit di jëflante ci lu bari. wa Gora situation bi bi mi amé noko dundé dundee. waaw situation bi moment bi nga xamanteni ni wul bañ toogee ba ci lendemain bi ay booru une la ma rakkam bu jigéen bu ñuy wax sala woo na ma Lobé Ndiaye de finansiwul démb ba moo ko waxee automatiquement rek ma ne ko moom ba muy dem ku mu àndal mu expliqué ma benn moto cek-cek bu ko déposé woon kooku nag day faral di liggéey ak moom lu bari bañ ma ko waxee ma ne ko est-ce que yor ngeen numéro am ñu ne ma waaw ci laa jël numéro bi woo ko mu fekk ma kooku fekk ma sama place jël si ma ci laa dem ci bi nga xamante ni fa la ko wàcce woon ñu nekkoon ci di def ay ba am benn kii benn sëriñ bi ni day dafay dem ñu dem ci kooku laaj ko mu ni jóge woon na fi ci moom ci moment boobu ci lañ def ay recherche dem gendarmerie def déclaration dem euh, fële ci hôpital bi def fa déclaration laajte fi ñu laajte yëpp gis ñu benn foo xamante ni nee nañu fii nekk na fi wala dara après ci lañ mu di retourné ñëwaat ci kër gi. situation bi xam naa ne métti na si yéen lool sax bi ngeen ko yëgee ne dafa faatu. métti na trop parce que li tax mu métti ñu mooy. dafa nekk koo xamante ni jàmbaar la woon ci liggéeyam amoon ay ambition ci liggéeyam créé woon ay employés mu nekk loo xamante ni lu ñu gën a touché mooy nit koo xamante ni la dafa ñeme social ñeme dimbali doomu aadama te lii may wax parce que li ci bëri yenn saa yi yi dañuy ñëw dara xew ci àdduna waxuma pour tey ñuy fabriquer nit ay wax naan def na lii def na lii def na lii mais kii lii ñu la wax ci message yi noonu la demee parce que man dama ci am lu ma leer parce que yenn yi dina dee nga yërëm ko

après pare tabaski ci dimanche bi ci njëkk déggante nañ waxtaan nañ bu baax maak moom baalonte ay àq ak yooyu yëpp def nañ ko maak moom wax dëgg yàlla. Mhm. Mhm. Mm-hmm. il paraît que dafa créer emploi te est-ce que mën nañu xam euh, emploi bi mu créer ban genre emploi la créer. waa emploi yi mooy dafa yor ay place place yi nekk ñetti place ñaar yi ñu ngi nekk Rufisque benn bi mu ngi nekk Rufisque ci kaw route nationale bi benn bi mu ngi nekk ci biir euh, parkinu malien yi. benn bi mu ngi nekk jam ñaajo te fi mu nekk liggéey bi ñuy liggéey benn nit mënu ko liggéey parce que liggéey la boo xam dafa metti parce que euh, jaay pièce pièce poids lour dafa diis te moom jigéen la mais jàmbaar la foog mu ànd ak ay xale yu koy jàppale ci liggéey bi te ñu koy jàppale ñu majeur lañ nekkuñu ay xale yu ndaw nekk ay responsable tamit encore ci seen i kër muy am lu lu koy war ak ñoom seen i diggante mu jëflanteek ñooñu te xale yi bu ñu ko doon xayma egg na ci juróom-ñetti nit ba juróom-ñaari nit dina fa egg. bokkut ak rakkam bu jigéen. lan ngeen di xaar si état du Sénégal koo xamante ni dafa amoon ay projet créer ay emploi ñu def ko jëf ju ñaaw ji pour liggéey bi bañ a taxaw loo leen di xaar si nguur gi. waaw nguur gi ci benn côté dañ leen remercier mais ci benn côté duñ ci am lu ñu neex parce que gendarmerie def na devoir am def na lu mu war a def lépp. ba yàlla dogal na ñi nga xamante ni ñu def jéye bi téye nañ leen waaye état bi ak cas bi ni mu demee àdduna bi yëpp di ko joytu lu mu néew néew waroon naa am ñi nga xamante ni dañuy liggéey ci wàll nguur gi wala ñi nga xamante ni jege nañ nguur gi wala ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci suñuy secteur muy suñuy maire wala ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñuy njiit yi nga xamante ni ci ñoom lañ yaakaar amul kenn ku fi ñëw koo xamante ni gis nañ ko ci mu ñëw taxawu ci wala mu sonn ci loolu bokk na ci lu ñu gën a metti parce que nit bu fekkee da nga ko jiite mu am naqar nga dégg ko partout dans le monde ñëpp yëg ko parce que kenn ci ñoom duñu yëgu ko parce que dafa siiw amul média bu ko tegul quel que soit alpha ñoom kenn ci ñoom waroon naa ñëw wala Macky Sall yóbbante wala maire bi nga xamante ni jege na ñu nekk fii ci Zangbaaw bi ñëw def jaalam sonn ci def ci ay jéego mais amul kenn ci ñoom ku ci ñëw koo xamante ni def na ci participation te tey jii bu doon ci ay caaxaan wala lenn balaa ngaa gis kenn ñoom ngay njëkk a gis ñëw jël seeni parole di wax kon bu naqar ñëwee muy tiis boo xam ne ñëpp dañ koy metti lu waroon nañu def seen présence sonn ci ba bu ëllëgee ñu xam ne ñun suñ njiit yi ñu teg suñu kanam am nañ ci ñoom yaakaar mm-hmm. parce que ñun ay xale lañ di liggéey amul kenn ko ci am 30 ans man samay 31 ans ma ngi soog a teg kon fii mag amu fi ay xale yu am ci ay mag yaakaar di jëflanteek ñoom bu xale yi amee jafe-jafe da nga ñëw taxaw ci seen i ginnaaw mm-hmm. compagnie la ba affaire yëpp jeex mais kenn ci ñoom tegu fi tànkam mm-hmm. waaw loolu moom bokk nañ ci lu ñu metti trop wax dëgg yàlla góoral li am ndogalum yàlla la bi nga tiimee si sa néewu xarit lan sentir ak lan nga yëg waaw ba ma ko tiimee li ma njëkk a sentir mooy jàmbaar dem na nit ku ñeme liggéey ñemee responsabilité ñeme créer am lu mu gëmoon ci boppam chaque jour li ma doon wax mooy man millionaire laa bëgg a doon ma ne ko doon nga ko ba pare parce que millionnaire mu ngi déparé ci 2 millions te ëppal nga ko kon milliardaire la ñuy wax mu ne ma wax nga dëgg ñuy foo di mu nekk koo xamante ni chaque jour li ma doon wax mooy sama yaay su ma dundee ba tabaxal ko kër. li ma gën a tuuse mooy dafa tabax kër ba kër gi di war a pare mu génn àdduna te dëkku ci kër gi yaayam mënu la faa yóbbu magam bii di baara mënu la faa yóbbu seen taaw papa mënu la faa yóbbu menn man kese maa la fa mën a yóbbu parce que man maa doon taxawu kër gi caabi yaa ngi nii ci sama poos tey jii famille bi ba ñëw na la yóbbu leen fi këram mënuñu la faa yóbbu loolu mooy li ma gën a tuuse mhm. ci sama àdduna mhm. massa massa massa massa massa massa euh, nan ngeen xamante si cadre liggéey bi ngeen xamante wala dañ leen boole. waaw ñun ñaar ci biir liggéey bi la xamante parce que dañuy daje ci ay conteneur di jëndandoo ay bagages bokk millier bi ñuy daje ñu dem ba ci biir ñu boole suñuy doole su conteneur ñëwee bu fekkee ni dañuy valeur bi dafa nekk 30 millions wala quarante millions day génnee li yor man ma génnee li ma yor Samba génnee li mu yor. comme nous lañ ko non si bas buñ paré ñu wax ala conteneur lu lëmb jënd ko suñ Si nous ku nekk dem sa place di jaay ñun non lañ dem liggéey bu fekkee ne ci financement dañuy dem ci banque mu financer. Nous ñuy liggéey di fay chaque weer ñu dem def ay traite di fay banque confiance dox seen diggante. loolu moo indi suñ confiance parce que lépp lu mën a garantie garanti ci ba ci banque yi nga xamante man man maa ko garanti signé di jox ko xaalis yooyu moo ma mhm, waaw waaw léegi nag sama problème mooy société am kat moo ko ci jàppale kat mooy continuer liggéeyam mhm. tam nekkoon situation famille am mhm. lépp moo ko seer mooy def lépp këram te jigéen la léegi ñoom mën a bàyyi société bi mu mën saay loolu moom mooy loolu moom mooy sonal ko lan nga yaakaar ne li muy jot a créé fii si gannaawam loo lan mooy solution bi euh, pour li nga xamante ne bàyyi na ko fi mu mën a wéy. waaw solution bi mooy état bi dafa taxaw na day dimbali jeunes yi kuy dimbali ba gis ku la ku dimbali te jóge fi jóge fi war ngaa mën a ut ay moyen noonu xool noonu nan la ñuy fexe ba continuer ko. Mhm. parce que tey jii société bu tëjee xale ay malax ñoo ñëpp dañuy taxawaat. tey xale lañ am nañ doole. capable nañ pour def lépp moom mu jël leen recruter leen dugal leen ci société am ñuy liggéey. di faj seen i besoin di dimbali seeni i waajur. tey jii loolu société boobu fay. après lan ëllëg xale yi lu luñ mën a def rek état moo ci responsabilité. état bi nag li mu war a def mooy ñëw waxtaan ak famille xool nan la mën a def ba société boobu continuer këram gi nga xamante ni moo ko doon tabax ba ci suuf pare na ci kaw des mu eggalil ko yaayam yóbbu ko ci. parce que looloo nekkoon yéeneem. Mhm. parce que ñoo koy defal ñeneen ñoo xamante ni amuñu njëriñ ci dëkk bi. di mhm. leen may ay kër ak ay terrain te duñ ay liggéeykat. Mhm. duñ ay responsable. li ñuy bëgg mooy kiy jooy ci tele bi di taxawaale kooku la ñuy may. ñiy liggéey di daan seen dool di ay xale foog ñu jàppale leen. ñun ñii foog ñu jàppale ñu fee ñu nekk. ñëw fa mais da nga yuuxu ci média yi yuuxu ci tele yi lu ne ngay wax pour ñu jàppale la mais ki ñu mën a jàppale mooy kiy diree ko di raam. ay xalé yu ndaw mën a góorgóorlu amuñu ku leen jàppale ci seen àdduna ñun amuñu suñu papa amuñu suñu yaay bu ñu mën a suñu papa yi retraité nañ suñu yaay yi liggéeyatuñ ñun ñoo yor suñu kër ko ci dem kërëm lu mu ci nit ëpp na 40 personnes parce que nit lepp lépp wax la ne waxal sa digënté sa borom te bul lay te li may wax day tourner partout dans le monde te ëllëg lu ma ci wax naka sulu non ëllëg nit dina mako xolé kon lu ma gëm rek lay wax parce que man alalu àdduna dootuma ci sonn ndax lu teranga bu nit di am amna ko opéré am na kër am na oto lu nit di am ci kaw suuf rek am na ko mhm. kon dootuma fen bu ma ko amul woon du ma fen waxuma laa ma ko amee mhm. te li nekk ci man moo nekk ci moom mhm. état bi nag ñu dimbali mu góor góorgóorlu jàppale ñu te xam ne ñun ay liggéeykat lañ te bëgg nañ ko ñuy couvrir financement yooyu muy wax ñun mosuñu cee bindu parce que ñun mosuñu naa nangoo compter ci état mais moom mii bëgg nañ état dimbali ko man waxuma pour man de man bu ma état dimbali parce que maa ngi dem ci samay moyenu bopp. Mhm. maa ngi góorgóorlu. Mhm. mais cas bi ak ni mu critiqué. Mhm. ni mu sérieux ak ambition yi mu amoon. non na ci état teg loxoom dimbali ko te yàlla rek tax. gis nañ ni ñi nga xamante ñoo def jëf ju ñaaw ji jàpp nañ leen léegi yan kaddu ngay addu si loolu pour ñu jeexal. waaw xam nga man ñi may sàkku ci ñooñu mooy tey ji yoon topp leen ba mu sës xam lu waral cose bi.

lu mu mën ci këram gële na ko jàppale lu mu ci mën na ko ci jàppale parce que yéen a jooju la amoon ak ay parents am mhm. parce que fii ñu dëkk moomuñu ko seen mag bu góor moo ko moom muy ku baax demba jàppale leen seen kër doon am ndox mu indi woon leen fii kon man so kër gi duma fi gan indi leen fii jox leen fi ñu dëkk fi pour ba keroog situation bi di changé moom muy defar kër di ko def surprise pour yaayam yàlla dogal mu te euh, fekke lépp mu des ay détails ay sew ñu ngi ciy ñaan ñëpp ndimbal ak képp ku mën a doon lii may wax nag santuñu ma ko ñoom mais man maa am yéene ji bëgg ñu jàppale ma ci jàppale ko ci bañ mën a eggali yéeneem. Mhm. ci këram. Mhm. jàppale ko ci ay place mhm. parce que ay frère am ak ay sœur am ñëpp ci place am lañ doon liggéeyee. su demee ba jógee fi rek. mën a société waaye kër gi sax dina ci am problème. kon lu ñu mën ci teg leen loxo luñ mën ci jàppale leen luñ mën ci mu avancé nañ ko def wasalaam. Euh, Gora ñoo ngi lay jaajëfal bu baax. Euh, Sen TV moo ngi lay sant di la gërëm di la ma masaw di la jaale euh, metti na lool di wax ne rek yal na la yàlla may xolu muñ. di leen fàttali yéen sénégalais Gora mi nga xam ne moom la ñu dalal nii moo nekkoon koo xamante ñoo doon bokk liggéey ñoo doon jógandoo ñoo doon daanandoo ñoo doon defandoo lépp mu nekkoon koo xamante ku ko sessoon la si moom mu nekkoon koo xamante xamal na ko loo xamante sax fami bi xamalu ko si biir ay kàddam jotoon nañu rotal loolu baax ñoo ngi leen jox dig daje bu beneen yoon. jërëjëf.